war a dem ci li nga xam ne mooy bureau de vote am euh, war a vote ji ngeen gis ko nii moom mooy candidat wàllu Sénégal. temps yi ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi nekk fii wara a vote muy ku respecté doomu aadama gis nga ñëw na directement rek ñëwul vote ji directement waa dafa ñëw saafonteeg ñi nga xam ne ñooy ñooy askan wi nuyu ak ñi nga. waaw ñu ngi nii jànn xam ne moom mooy docteur. Fallou Dieng mu def euh, votam ba génn nekk jiite di candidat euh, euh, wallu Sénégal mu taxaw nii def votam ba génn monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. waaw Alpha maa ngi lay fay ak ñi nga àndal yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw di content da am contentement. Mm-hmm. ci tey bu demee ginnaaw bi ñu sante yàlla. mi ñu may ñu fekkee bis bi ndax amoon nañ quinze jours yoo xam ne ku ci ne jaay nga sa programme géwulwaay yi wax nga gis-gis bi nga am si politique bi nga bëgg mu am géewul euh, tey nag mu nekk bisu tànn euh, bis bi nag nekk bis bu am solo ci démocratie parce que démocratie buñ ko waxee mooy képp koo xam ne mën ngaa doxal nga yëkkati sa loxo ne dama bëgg ñiy tànn tànn kon tey sant yàlla la bi ñu yàlla may wér yàlla may ñu fekkee ko ba mën a def li nga xam ne c'est un devoir citoyen

te bu buñ si jógee géwul rek mooy ki si gagné xanaa rek ñu ñaan élection yi niñ ko commencé ci campagne bi ba léegi ñu def ko si jàmm génn si si jàmm bu ñu paree ki nga xam ne moom la yàlla moom la fi yàlla teg ñun ñëpp ñu ànd félicité ko ku nekk encouragé sa morom si ñun ñi nga xam ne dañoo ñàkk yàlla suñu borom ah, parce que noonu lay noonu lay defee ba pare ñun ñëpp ñu ànd loxo joxante liggéey mën a ah, mën a mën a joxante loxo ànd liggéey euh, mooy nekk. xalaat boo jàpp ne mën naa doxal dëkk bi bu ñu koy wax nga indi si sa contribution donc man daal appel boobu laay lancé di ko lancé jeunes yëpp di leen wax ne aussi ñu gën a taxaw xam ne géewul ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñun ñoo ko mën a doxal ñun ñoo ko mën a defar. yan kàddu ngay tëjee. xanaa kàddu yu may euh, tëjee ay kàddu yu sant la ñu sama coalition bi nga xam ne ñoom laa àndal muy coalition wàllu Sénégal. toujours ni ma koy waxe rek buma limé ki ci bop tête de liste proportionnelle bi muy Modou Mbaye job day matal di souhaiter bon sens à tous les candidats di ñaan aussi que géewul mu jëm ci kanam euh, té ja ak té loolu sax dina am inshallah bu nexé yalla jere ah, jeuf jere jeuf ki nga xamné mom moy docteur. nee nañ ko defa ñaan ngeen gis ay ay ay mbokam ay minitam gungé ko ci li nga xamné moy mooy pour mu voté ji. mu génn coordinateur am mbay Mbaye. sëñ Ablaye ñu gis sëñ Ablaye ñu gis ñu ngi gunge ki nga xam ne mooy cheikh bi. yan kàddu nga ñu mën a sànni ci gunge bi nga xam ne ñu ngi koy gunge bi. xanaa di sant yàlla rek. gannaaw bi ñu jullee ci Seydina Mohamed sant suñu waa waajur. noo ngi sant militants yi yëpp. di ah kenn ku ci nekk nan ànd ak dal. nan ko tàmbalee ci bismillaahi rahmaani rahiim àggal noonu ci alhamdulillaahi rabbil aalamiin suñu responsable Seydou Thiel. ñu gis nga ñëw ñu gis nga ñëw teew ci li nga xam ne moom mooy euh, bureau 2 nga voté fi tey naka nga gisee li nga xam ne mooy élection yi déroulement bi waaw ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di sant suñu waajur waaye di sant nag vraiment commune Ngourane euh, def nañ campagne bi fa tabarakallah sans incidence xaa ñu ngi déplorer nag tuuti violence verbale boo xam ne na ñàkk mais ñun nag waggaroon quand même suñuy militants euh, invité leen à la non violence physique que verbale ba alhamdulillah xëy na amuñu leen nu euh, mais les jaar na ci yoon côté campagne tey euh, opération électorale bi it wax dëgg yàlla def nañ ko ci discipline ci sportivité ba fii ñu toll ak dégguma fi incidence ci commune bi yëpp donc ñu ngi ciy sant santé bu la a baax di sant tamit euh, toute la population de la commune ci discipline bi ci yar bi ak ci euh, citoyenneté bi ndaxte nak lolu tamit euh, li ñuy dégg ci yenen yi dal ñun yalla euh ëmpale nañu ko kon nak ñu ngi sant bu baax. yan kat ngay sanni jeunes yi nga xam ne ñoo la gunge durant bi ngay def sa campagne ak ak andi la fi nga xam moy nga voté. alors dina ko wax fi dama bëggoon xaar ba gagné ba investiture bi ma wax ko mais mënatuma ko xaar ce mandat là inshallah qu'on va gagner sera dédié à la jeunesse. C'est un mandat qui sera dédié à la jeunesse. Parce que nous, après les femmes, nous avons le relais. C'est les femmes qui m'avaient invité à être leur candidat. Machallah, je l'ai accepté. Je ne sais pas Nous allons porter la candidature de notre future maire. Et Boba xa aw ma aw ma sax man lenn loo xam ne ko def campagne bi jeunes yee ko def parce que ñoom ñoo def porte à porte ñoo dem sillonner toute la commune man daanaka doxant doxantu rek la doon def. doxantu sant yàlla bu baax a baax euh, di sant tamit toute la population sénégalaise ci maturité bi ñu am ndax élection ñu ngi dégg fu bu bëree bëri bu élection amee euh, scandale yi fay am ak xeexante yeeg reyante yeeg yooyu ñun Sénégal yàlla dimbali nañu ci loolu et maa ngi invité tamit tous nos euh, concurrents que bu 18 h heures dix neuf heures ku gagné nga am nga am ngam ndam nga xamni ni yaa am ku ñu gagné nga am ngor xamni yalla yàlla joxu la ndam nga dem ak sa ngor xamni ni nga légui nak yalla moy décider kuy gagné te ñu fàttaliku ni te ñu fàttaliku ni élection yé passé sama adversaire di maire sortant ba mu gagner ma tranquillité avec sportivité avec citoyenneté avec discipline wax samay militant que bruit vraiment élégance Bobu. Nous ndam nous, nous na élégance Bobu. victoire merci le maire le maire délégation dafa bàyyi ba kër gi sedd mu waxtaan ak ay militants am dajale leen saafonteeg ñoom. war a def votam war a dem voté ji fi nga xam ne moom mooy bureau bi ñu jëm ngeen gis euh, booy xool fii mooy bureau bi gën a rëy boo xool ci géewul euh, ñu ànd ak ki nga xam ne mooy candidat Magaye Gaye Yewwi Askan Wi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waaw ñu gis euh, nga ñëw fii def sa vote ba pare tey naka nga gisee déroulement vote yi. bon déroulement vote yi li ma gisagoon jaar na si yoon. vraiment amul benn jafe-jafe amul benn problème kon leg ci li ñuy xaar résultat yi ñu xool kan la suñu borom di jox ndam li. yan candidat ngay sañ ñi nga xamne ñoo la gungé won bi nga déparé ci euh, meeting bi heure bi tay ji ñu gungé la ba nga ñew fi ci sa bureau de vote yan kàddu nga leen di sañ ñom lima leen di sañ di leen sante di leen gërëm and na ma ak ñom si ngor jital nañ ma faxastaluñ ma liñ bëggoon lepp ñi ngi koy def ci normal ñom def nañ liñ wara def ma and ak ñom kon léegi ci yalla mo ci dess waaw merci jërëjëf kooku moo doon euh, candidat Magaye Gaye Yewwi Askan Wi ngeen